fab fab day damm sa <laughs> dangay da rek mu may la benn xoolal moral yi wàcc eh. ñu ne kat eh. boo leen gisee rek wax ma eh. kenn mësul gis kenn mësul gis tribune yéene kaay ne njiital gëm sa bopp wallaay cellu mag du ay dara arama nga ñoom rek ca baa nga septième gaar bugaana nga ca gayndeya ni ñu koy faral di waxee ci tës en tout cas waa Touba nee nañu mbir mi seen i mbir la hmm. bugaan nii ñu téye. non daa war a géem seen yëpp géem bi ci boppam moom. <laughs> ne géem bugaan nag antaluñ ko. parce que bugaan moo géem tey moom nekkul candidat nekk candidat géemam boobu gaañ mm-hmm. fii daal ay anta fi nekk. ñu ah, géré xam nga. Mm-hmm. ay. ah di zongle anta fi fii taxaw taxawaayu bugaan ngay dani mm-hmm. maa la wax nii. nee nañu ñoom ci boppam guerre bi wax fa dëgg ci baatin ñoom ñoo ko téye waa Touba eh, ndax nag Bougane seen njaboot la. gars am nañ problème zaahir ak baatin njaboot la ñoom. gars yi ñu ngi doog a dëkk mbër. Hmm. waa Touba dee nag daanaka démb foofu tout la journée. wàccim kaamil la njàngum ay xasaati Serigne Touba. lépp ngir jagleel ko njiital gëm sa bopp le jàmbaar di Bougane Gueye Dany ngir fa mu nekk ak xat ya mu nekk mu daal di génn nee nañ Bougane nag lii tax ñoom mbir yi ñu njëkk ko def seen yëpp bu weesoo li mu doon doom ak njaboot ci kër ga. ba waa Touba nekk ci ay jafe-jafe ca mbënd ma waaw ba xalif ba génnee kopparam mhm. Bougane Gueye Dany dafa génne moom it alalam mhm. jox leen ko waaw waaw ngir jàppale sinistré ya fa nekk waaw waaw loolu la def ay at ci ginnaaw ca euh, euh, Kër Massar waaw waaw loolu la def ci Rohingya waaw noonu la bëggoon def sa Bakel saa yu saa yu askan bi maree naan mooy bëndu teen yi askan wi naan ñu naan ba mbandi maalo mhm. waa Bakel la bëndaloon teen ngir ñu naan nag ñu nekk doon du ñu fi naane wallaay nañ waxante dëgg gars yi soxor nañ de. waaw soxor nañ de. ñu dem. xanaa dañ ko waroon escorter sax. Ah, vraiment ngir ndimbal li bañ a naxataay. vraiment mu yegg ba sa askan ba. waaye ñu ne ndimbal li bu mu dikk. ñi daan néeg nañ dompat néew. yàlla baax na mi ngi. Bougane Gueye Dany daanaka kon ëllëg lañu ko war a taxaw lañu ko war a àtte foofe euh, sa euh, Bakel Tambacounda. baat Barthélémy Dias jëm ci attaque bu euh, siège yu taxawu démb moom jàkkaarloo naa taskatu xibaar yi nee na bu nekkoon ci réew mu normal Abbas Fall du fanaan këram. déedéet. ndax kàddu ya mu yëkkati Barthélémy Dias mooy wax nee na. Mhm. Abbas Fall waru woon a fanaan këram ndax kàddu yam yëkkati euh, mu ngi baat nee na ko nag boo ñuy xaar ci ci xeex ndax dëkk dóore fayoo koy tas mm, mm, mm. te koo xam baat xam na baat ragal yii tiitu laay la guerre moom ak defante oh, moom mooy plat préféré kenn ko jam naa ni mën na ci ndékki añ ci reer ci laaj ci couchant waaw waaye démb dane ko mm-hmm. fi ngeen ñuy oo duñ leen fa fekk mm-hmm. Mm-hmm. ndax ku gémma ñoom di naaj waaw doo wax doo wax jàmm te fu mu nekk nii da am lu leen doy sëkk mbuba caq ak jaar dëgg la ndax ngeen da ngeen tiit. waaw. suñ mm-hmm. génn askan wan nañu leen gannaaw. Mm-hmm. yéen fu mu nekk mbalit yi maire yëpp yéen a ngi leen di. roñ di yóbbu waay waay waay mbalit. Mm-hmm. ah bien sûr la racaille. fu mu nekk ñëpp ñu ngi bu. la racaille laa jël Macky Sall mat élection législative ya transhumance. boobu ñëpp raw UCG xaw ma Sonaged lu ñëw nga. lépp la. waaye. Pape nee na duñ leen ci fekk se de. xeexuñu. da ngeen di bëgg xeex parce que xeex nañ fulla boo xam ne maire bu demit sa tuggulu guy rek. say nopp rek nga yóbbaale. kese kenn du la say waa kër sax du ñu ànd ak yow. nee na nopp rek nga yóbbaale. Anta Babacar Ngom Linguère Promax. plus taxaw taxawaayu góor. Mm-hmm. wàcc si terre ñoo Anta ba léegi wax gooma ban dan nga yor. ban dan. dan Anta nee naa la sixième dan la. sixième dan Anta sixième non du ma la déet. non Anta boo xoolee pëccëxoo rek nga xam ne pëccëti ko. Anta xuy coxoo. pëccëxoo bi ak yooyu nga xam ne sixième dan la Anta lu taaweeku fu ne. jontal la. ante de jëri rek la doon. <laughs> nee na fi mu nekk nii violence bi ngeen ñuy woo nii. ñoo ko gën a man mm-hmm. waaye duñu ko def. xar wesu weesu mbote. waaye moom nee na man sama classe may ma lool. xar weesu mbote. sama jàng may ma lool. sama affaire bi bopp la. Mm-hmm. politique ni laa laay sofal di wax. Mm-hmm. bopp la. Mm, c'est neuronal de c'est pas musculaire. waaye du xeex du xeer du paaka du jaasi. du taal du pënë. nee ko politique bopp la ante nee leen. affaire bi mhm. bopp la mhm. boo demee nag ba amatoo euh, euh, idée mhm. yoo mën a défendre yow say mbir ah si ngay jël di xeex waaye nag ñoom doxuñu ci violence ndax seen bopp dafa fees une tête bien faite et bien pleine ante nee na violence moom ñoo leen ko jéggal ci arène politique bi taxuñoo jóg nee na loolu du seen foor ñoom kii nga xam ne mooy Mouhamed Diop nag sunu naataangoo bi nee na ko Abbas le grand journaliste nee na ko Abbas boo tawat Abbas watawat waxuma nag Mouhamed moom. mu ne yemal ci kutu ñu roof la ci gay. yemal ci kutu ñu roof la ci gay. teelu mag ne soyez pas ridicule bul xeeblu sa bopp. réew mi de nit ñi dañoo sàmm. bul déglu ñu naan laan yaa tey. Hmm. ma sama yaa tey dama ko gëj a teg sax <laughs> yaa tey. boo ah, ko xam naa lool la nag suñu yaay yaa tey. gis nga après li lay andi. moo ko ne yaawam dëkk bi. waaw. Mm-hmm. bu fekkee yaa ko def yaa tey mais j'espère que bii du wax loolu. non il faut voir que Abbas était dans un certain état ah, d'esprit. Ah, mais bii moom. en tout cas Mouhamed Diop nee ka nag. defaraatal sa toogaay. génnal ci li nga ne. bul lu sa bopp Abbas. wata wat. ak dégloo. ak dégloo. nee ko ak dégloo. jamono joojee nañ ñu gis ne kon wax fa dëgg siège yu taxaw. defal tension ah. tension Abbas. ni ñu ko lakkee. c'est que tension gi sax c'est ñun. jom jomaay laa laaj kan la ñu bataleel parce que man xaw ma kan la ñu war a batale moom day dem rek mais il faut mu ñuy batale ah, mais bu bu Assane demee Ousseynou ci réew mi rek waaw di moom kooku moom mënuñu ko bataleel nag parce que kooku moo naan opposition kaa leen ñu cóob <laughs> kon batale ñu ko wóorul Ousseynou ak Assane la daal bu Assane demee Ousseynou ci réew waaw bu fekkee Ousseynou mooy woote kaa leen cóob est ce que moom war nañu ko batale xëy na ministre de la justice la ñu batale Cheikh Ousmane Diagne ministre de la na mbir mi leer. xam nga moom jamono yi bi bi ñuy toj la kii laas ak 24 heures chrono. bi ñu song xam nga moo doon procureur. waaw ci nguur Abdoulaye Wade. mais teewul mbir mi dañ ko topp ba mu leer moo tax fii nañ am yaakaar rek. ci Ousmane Diagne waaw kon ba taleel de la justice. waaw Ousmane Diagne. parce que mënoo ñoo batale Abbas. waaw parce que dégg nañ discours am. mënoo ñoo batale ak sunu yaay maa tey ministre de la femme parce que dégg nañ discours am. man mën a jiyee. man ñoo mënuñoo batale ak ñooñu. mënuñoo batale ak waali waali Badiane. waali waali Sappali. Sappali waaw. mënuñoo batale ak Bilal. Bilal moom jaar ma ne day dem Tamba suba. xam nga tey. Mm. yii mais léegi yow man. Bilal fa mu yoram bi. waaw xanaa nga batale ñoom ñu ngi Touré. wala sunu sunu yaay. super linguère <laughs> ah. suñu yaay Aïda Mbodj. waaw noonu moom kenn duñu ko batalal moom. ah mais il faut ñu ku ñu batalal parce que nag suñu président toogul. kon ñu dem ci ministre de la justice. waaw ah, président bu dikkee yëf yi gën a neex de. président uti na xaalis de <laughs> ceeb ñu ne kon ñu batale rek la ñuy laaj ci réew mi wàll bu ko di jee daal dinay dikk ci violence ak lakk gi am ca uh, taxawu uh, uh, siège yu taxawu. fu mu nekk nii nag nee nañu wooteeg defante ba nga xam ne Abbas Fall yëkkati na ko yéenekaay bi dikk na ci. Barth à ses militants défendez-vous le ministre de la justice. nee na ubbi na ci ab lanquet ndax mbir yi fa mu leer Anta Babacar Ngom se démarque condamne les violences politiques nee na que ñun suñu xeex notre combat et celui des idées ñun xeexu bopp la ñu def. xeexu intellectuel waaye du defante de ku ñu si xaar di nga ci wéet. nee kaay bi daal dina ciy dikk mi ngi euh, euh, démarche de transparence du Sénégal saluée par les Américains jërëjëf loolu moom am na Mohamed Diop moom nee na ko Abbas moom bu ñu kenn batalee yow. ndax fi mu nekk nii war nga def defaraat sa toogaay ministre de l'intérieur appel au calme et la retenue appel bii président suñu président Diomaye moo ko njëkk def hmm. woote na nañu ànd ak dal waaye kàddu yu daanoogul sax gaañu euh, teggi ay waxam man daal man man man man moo tax may laaj kan la ñuy bataleel hmm. le peuple quotidien la République nee na les coupables doivent être sévèrement punis ci li nga xam ne moom moo xew ci euh, siège yu ah taxawu euh, Sénégal caméra de surveillance nag am na ay images yu ñu jël ña nga xam ne ñoo def gis nañu leen ci kon nag enquête ba xam naa ne du yàgg enquête ba normalement warul yàgg mi ngi direct news yi nee na Abbas Fall pointé du doigt moom la ñu joxoñ yéen kaay wax de du samay euh, kàddu yéen bi dikk ci exclusif moom yéen bi violence électorale acte criminel l'appel inattendu de euh, Diomaye mi ngi euh, les dégâts sa con se constatent la tension monte le feu couvre lu dul jàmm-jàmm ko gën nag nañ ci mën a génne bu baax acte de vandalisme ministre de l'intérieur mi ngi woote ak dal kon ak daal ak dégloo ministre de la justice nag bi nga xam ne moom la euh, Thierno wax nañ ñu ko bataleen mm-hmm. moom nee na ibbi nañu enquête waaw yàlla na enquête bi wéy ba mat sëkk ñu xam exactement président Macky Sall yow nag xaw ma koo batale sa militant yi waaye parce que gisaguñ la moom mii xam ku mu ko batale moom da doon day ñëw. Abdou Mbow la leen batale. ah Abdou Mbow waaw Abdou Mbow nag mën na ndaw. lu Macky Sall wax. mi ngi nii. Macky euh, s'expose au désaveu. enquête dans le flou d'un retour. xamaguñu ndax dana ñëw wala déet mi ngi. Abbas Fall l'audition ratée à la sûreté urbaine ah. section de recherche. Euh, le vigile et quatre gardes qui dormaient au siège de Taxawu entendu kon kon ñu ngi déglu. mais yow mais yow Coombaay rimbax papax ni yow rimbax papax rimbax papax Coombaay rimbax papax mi ngi Sénégal ba léegi ah rimbax papax Coombaay Abdoulaye Sylla dóor na ay kurpañ ki nga xam ne moom mooy euh, euh, euh, nu mu tudd Ousmane Sonko moom it ki nga xam ne moom mooy Abbas Fall kon mooy ma nga ca campagne ba mu ngi nii nee na Amadou Ba est un homme du moom it kon léegi dafa am ngéwéle gu nekk ci moom Abdoulaye Sylla ma nga ca campagne ba de. Mhm. très bien noonu la borom jiital Ecotra affaire de provocation de vendetta et d' euh, d'apprenti Blé Goudé mi ngi di dikkaat na moom yeneen caay bii di Source A euh, ci euh, la xew foofee nga xam ne moom moo di makkaanu taxawu Sénégal Mamadou Fofana scandale la wala mensonge la du ñàkk di ñëwaat mille milliards yu ñu wax ne dañu ko fekk ci ab compte loolee kaka wax du kenn ku dul njiital Pastef di Ousmane Sonko. nee nañ compte bi nekkul Sénégal. beneen compte beneen dëkk. bu benn jigéen waaye mille milliards ah yow kon yoo xam nga ne ko dëkk ba sa jigéen ko jiite <laughs> foofu nag di ñu wax après loo xam wax ñu loo ñun lu ñu xam. am naa naar ma kii am naa aigre ma gànnaar. <laughs> yàlla baax na <laughs> xeex bi fii ci diwaanu Dakar campagne bi Abass Fall la jéggalu na. nee na mi ngi jéggalu ci kàddu yi nga xam ne moom jot na ko yëkkati regretté na ko kon nag comme regretté na ko euh, ndax dañu koy bàyyi mu sedd am déet li ci kanam raw li gët l'évidence daal di yëg dikkaat ci hommage bi nga xam ne waa Touba rendre nañu ko njiital gëm sa bopp lee jàmbaar wàcc fa kaamil ba noppi te yëkkati fa ay xasaayit ngir ëllëg bugaan ngay dañu ñu mën koo bàyyi mu dellu si njabootam dellu ci liggéeyam mais également baatu campagne ni ay moroomam di ay candidat di euh, def yéenekaay bi daal dina ci euh, dikk quand Diomaye peine à être entendu wax dëgg parce que moom def na déclaration woote jàmm ak dal ak jéggale waaye ay kàddoom daanoogul fi mu jëlee roplaan bi dem nee naa kat batale ñu wax kenn moo tax gaa ñi di waxati mhm. Diomaye boo demati président il faut nga koo ñu bataleel koo xam ne yow say nit rus nañu ko mm, dëgg la ba nga jël roppalaan tamit ñuy wax ni sa ginnaaw mm-hmm. il faut ngut koo xam ne dañ ñu koy bataleel mm-hmm. sinon rek ñun dañuy tuguraanke <laughs> le public Assane Assane Assane Assane Assane mu dégg nag tama gi rek moo ci manqué rek Aïssatou Diop Fall. waaw wax na lu ko metti de. ca waaw nee na nag faw ñu teg loxo Abbas Fall mii. waaw Aïssatou Diop Fall nee na faw ñu teg loxo Waly Diouf Bodian mii. nga ne Sampali. Sampali te nag jomaay nag wax fa dëgg faw nag ñu wax moom. yaay président nag waaye saa boo waxee say nit ci boppam ñoo tey gisay wax. Aïssatou Diop Fall moo ciy dikkaat. nee na ñii moom mën ñoo mucc. Abass Fall Waly Diouf Bodian. mën ñoo mucc. acca kon ana Odia ana point actu mi ngi. la campagne risque de sombrer dans la violence yéen a kaay bi daal na dikk takk wàllu Sénégal et sàmm sa kàddu def na nu bloc en tout cas foofee sa ndar nu ko defee ci Dakar. ndaxte noonu na nu ko defee de. très bien. coalition baa ngokk ki nga xam ne moom mooy Ahmed euh, Ndoye dañu ko defeere ni ki dem ba am na retour de parquet sunu naataango bi yéen kaay bi daal dina si euh, euh, dikk. kon nag cocktail yaa ngi nii cocktail explosif defante bi euh, le quotidien dikk na ci lii quotidien daal dikk si Bart Sonko qui survivra en tout cas yéenekaay bi daal dina ci dikk di deux minutes pour l'essentiel absent et réclamé il donne le tournis à Sonko kon nag ñii fi mu nekk ñoo traîné la Ousmane Sonko ñu ngi mel ni bëñ buy metti si moom dikku ñu bokk ñu waaye fi mu nekk ñoom moo leen moo leen euh, euh, Sonko ñi ñoo ko teree nelaw Karim Meïssa Wade moom xam naa du dikk moom yow moom yow xam naa dañuy wax nii rek dañuy rafetal kii bi Bougane Gueye Dany moom xam naa yow dañ naan laan kii bu génnee cortège am rek àndaluñu ko <laughs> yow moom waxuñu sa làmmiñ de mais yow sa cortège rek lañu ñu àndalul donc mi ngi nii euh, Serigne Moustapha Sy waa PUR ak ki nga xam ne moom mooy président euh, Macky Sall waa Xosanto man Bougane moo tax ma xam kan ñoom fan la Xosanto féete mi ngi en tout cas ñoom it ñi ngi ñaan ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany mu génne euh, ca fa ne suba la trente 30 incha allah ñu yegg si jàmm ana Odia Odia moo ngi nii. Bart waxuma la ay bal lay wax fu mu nekk nii moom ki nga xam ne moom mooy xalifa Sall nee na moom plainte rek loolu moom mënta ñàkk kii kala Abdou Mbow APR waaw Abdou Mbow lu tax ñu koy solo daal di gudd waaw nga dëgg na xam naa taay bi la mi ngi ni Abbas même pour battre sa salan coupe après de langage du ñu bëgg a bind noonu il se fait ah, ngi noonu dooteelu campagne bi ex discours ba mu tenir tuub naa ko jusqu'à me couvrir entièrement de sable ah kon jéggalu gi dafa dem ba bërëngu ci suuf yàlla baax na te jéggalu gi la en tout cas yow daal